unité 9 ñu ngi seen biir émission Roube Time fu ne nii mbedd baa ngi ni xool kan lañ wala Roube ñu ngi nag ko ñu am di comédien ñu ngi ko ñu am di comédien xam naa dañuy yëg léegi ci kaw dafa moom benn interview bu doy waar mais comme daal dafa bëri góor bëri góor bëri góor am benn xale bu jigéen am ni am ni sa koñ amul jigéen ah ay mère rek a fi <laughs> Banyak katakan kita banyak baca kita banyak baca kita banyak baca rube rube time kita baca kita jer jer ah, tabafakala macha allah yéen a ngi seen biir émission Roube Time bu ñu ko safoo saa di ko defee maam chaque lundi mardi ah, ak ak 17 heures 18 heures sur la télévision Equivox TV ni ngeen tàmm di ko safoo di ko tiitaroo saa su ne Webe Time mooy dugg si askan bi mooy génne artistes yi mooy dem ci mbedd bi moo moo jamono soit dama ngeen ruube wala ngeen ruube nga te nag ñoon maam sees si maam ñoon passer ah, fekk fi artiste bu mag a mag ñu xamee ko ci am di comédien xamee ko ñu xamee ko ci am di comédien donc tey ñu ñëwoon këram sees ko bëggoon bëgg nga présenté askan bi xam naa dinañu dàggi ñu ree ba sonn quoi man comédien xam naa am ni a neex waa am di ram baax càggin mbar lam baax càggin am na looy nuyu salaamaaleykum waaw salaamaaleykum ñu ngi nuyu waa Sénégal di nuyu àdduna di nuyu ñëpp xam di nuyu jiital nuyoo bi nag sama yaay di sant sama yaay bu baax a baax di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te di sant sama sëriñ di sant ñi may jàppale mhm. ndaxte affaire yombut am na ñoo xamante ni buñ la gëmee rek gëm nañ la. Mm-hmm. dañuy nekk sa ginnaaw di la jàppale. di sant sama équipe. ñi may àndal di jouer wax dëgg fa yàlla ay jàmbaar lan mm-hmm. ay góor yàlla. bar Cheikh Fall heure bu ma leen de ni ñëw. lu ma leen teg dañ koy nangu lu ma leen mm-hmm. laaj dañ ma koy jox. ta am di doonagul benn artiste bu mag bi. kon maa ngi leen di sant di leen gërëm ñoom. gërëm ñëpp quoi. waaw am de ku fi ku ne sa mbokk nga am te ku la safoo ku ne nga nga nga nga ko donc kontaan yow bu baax a baax mais am di. xam nga émission bi moo tudd Roube Time. booy loolu du yomb. am na ma bëgg nga roube ma askan bi rek. la ilaha illallah non est ce que du ma la wax man bi may jugee dëkk ba di ñëw ndakaaru sax. acca acca acca bi may jugee dëkk ba di ñëw ndakaaru mhm. non doon na affaire bu garaaw. booy maa ngi sol sama bolog bu vert ba. isaan vermante ba. billaay yor sama mbuus mu bula ma ñaf sama yére ya bi may jugee dëkk ba maam dane ma. <laughs> yaa ngi dem réewum taax de réew moo xamante ni dafa métti lool bari ay jafe-jafe ne ma néeg seer na fa dund seer na fa liggéey métti na fa ma ne ko maam boo ma ñaanale rek ma dem mhm. ndax man doom doomu géwél laa setu géwél laa barke yonent bi ma ñëw jël oto mhm. dama ko fàtte mukk sa maam mi ngi ma jox junni njàmbe mhm. ma jël junni bi dugg ci oto bi fay mille cinq cent ñetti téeméer ñetti téeméer ñëw Dakar daw bis daw bis biy daw ba dugg si Ndakaaru booy fu romb nit ñi ne may ma are man nag xaw ma fu ma jëm. maa ngi dem réew taax sax aw ma fu ma jëm. loolu ci gën a yéeme. Mhm. barke yonent bi ma ñëw biñ dugg seen Ndakaaru arrêt bu aksi rek diw ne may ma wàcc diw may ma wàcc may ma wàcc ban agsi Kër Massar ma dégg ñu naan Kër Massar Kër Massar ma ni Kër Massar gii am na benn paa bu daan ñëw Jurbel bu tudd Baye Saliou Sarr daan ñu may xaalis. Mhm. ma ne kon Kër Masaar gi su ma fi wàccee. Mhm. dem ci Baye Masaar mii moo Baye Saliou Sarr. Mhm. yaakaar naa ni ñoo war a bokk baay. ndax ma Saar gi Saar ja ma jàpp. Mhm. booy ma wàcc pour man Kër Masaar. ab nit la man nit laa jàppe woon Kër Masaar gi. ci dajeeg benn gars ko salaamaaleykum de damay laajte kër Baye Masaar. mu ne ma non sam kooku du du nit maanaam gox bi moo tudd Kër Masaar. Kër Masaar yaa ngi dégg. ma ne ko léegi néegub luyaas am na fii mu ne ma boo demee ba ci paa bi nekk fee. day luyee. Mhm. ma ñëw ba ci paa bi daal koy nuyu ne ko salaamaaleykum man de góor gi damay laajte néegub luyaas. Mhm. paa bi daal ne ma ah am naa benn néeg de. Mhm. waaye 3500 laa koy luyee. ma ne ko 3500 man ba ma jugee dëkk ba maam def ni ma woon néegi Ndakaar day cher de. mu ne boo gisee mu yom mooy néeg bi daa bari yoo. ma ne ko bu dee ay yoo rek jaaxaluma yaa ngi dégg. paa bi jox ma caabi ji. te maa ngi gàddu sama mbuus gi ma ñaf sama yére ak benn ginaar gu jigéen. ginaar gu jigéen. billaay booy njàmbe bi ma jëlee caabi ji dugal ci bunt bi bi ma nee kàccit kàccit laa la wax bi ma ko defee ba bunt bi ubbeeku deux mille deux millions cinq cent yoo laa wan na deux millions cinq cent gëmoo ma de. la yoo. ba tey mhm. ma ne amul problème. ma arrière xam ne yooyu sawaay musiba lan mhm. ma ne xaaral ma teg mbuus mi nii ak ginaar gi sàkk pexe ci yooyu mhm. booy ni ma tegee mbuus mi ginaar gi ci biir néeg bi génn pour sàkk ci pexe mhm. dégg bruit ci biir néeg bi ma retourné dugg ci biir néeg bi booy gis yow sam waa laala wax yooyu jàpp ginaar gi samp ko ay pépép muucu ko ba ginaar gi jeex tàkk tàkk tàkk <laughs> ah. bi ma nee ces ginaar gi ay dunko ma topp non lu leer laa lay wax nii de man xam naa ne gëmoom mais lu leer laa wax ma ne yii yoo ci man lan jëm si ma ne xaaral ma dem ci bitig ba su ma demee ci bitig ba wuti fa garab yoo en attendant taal ko mhm. ngir lijjanti ji yooyu mhm. yaa ngi dégg mhm. ma taal garab ma jël garab yoo bi taal ko ci néeg bi génn pour lijjanti ji yooyu sama waa ji booy laaj ma yooyu def booy ma fekk yooyu wër garab yoo bi ne dañuy tux si booy ay yooyu fuuy ma ne yii yoo saawaay mooluñu ma ne xaaral ma sàkk ci pexe ma dem ci bitig bi ne damay jënd ji baygon ma ñëw jox xaalis borom bitig bi ne ko jaay ma baygon ndeysaan bi ma jaayee baygon may xaar sama weccet ci contrôle bi ndekete yoo bu mag bi topp na ma yoo bu mag bi moo ma topp seen chef bi moo ma topp booy borom bitig bi tegee baygon bi ci comptoir bi may xaar sama weccet yoo bi ne cas baygon bi dajj ko tëru ko ba mu jeex tàkk ne ma maa lay xaar ci néeg bi ma ne ko tey nga may jee gis booy loolu laa jóge Kër masaar di daw di daw ba dugg si parcelle. d'accord bi ma dugg see parcelle fekk sama dajeeg sama benn xarit boo xam ne ndeysaan daan naa ko gis ca dëkk ba. Mhm. Pape ma ne ko man de bàyyi dama ñëw fii ne xaw ma fi kenn amu fu ma jëm mun ne ma kaay ma yóbbu la sama gàlle nga dal fa. Mhm. Pape yóbbu ma gàlle. ne yow lan ngay liggéey ma ne ko man amagoo benn liggéey liggéey bu ma am baax na. dëgg la Pape ne man damay sàcc. ma ne ko mu ne waaw ma ne ko ah ñun de gone dëkk ba yarewul ñu sàcc mu ne ma ah dëkk bi de sàcc fi gën a dox uhuh. ma ne ko man sàccu ma dëgg nga nga dëgg la ko sàccu ma de uhuh. pap xëy uhuh. ma xëy pap wàcceeg cent mille ma wàcceeg cent franc ñu xëyaat pap wàccaaleeg deux cent mille ma wàcceeg deux cent franc ñu ba léegi yaa ngi téye sa ngor ba léegi maa ngi téye sama ngor rek gëm sama bopp gëm sa bopp ñu xëyaat pap wàcceeg cinq cent mille ma wàcceeg cinq cent franc ma ne ko pap jàngal ma sàcc ba dugg ci sàcc mi. nu may def. bi nga commencé sàcc. waaw kay looloo jar a laaj. booy bi ma commencé sàcc. pap bi may jàngal sàcc def na ma. Mhm. booy sàcc. da ngay yoot di yoot di yoot ba ne coppet la nga bëgg. sooy dëppi da yoot di yoot ba ne poymet daw. ba ne may. xam nga ñun dañoo fonk ndigal ñun gone dëkk ba loonu wax nit ñi ko waxee noonu lañ koy defee. booy ma sible benn kër. ñëw bu ci buntu kër gi taxaw. ne booy sàcc. daa ngay yoot di yoot di yoot ba ne coppet li nga bëgg borom kër gi dégg ma xaar maa kuur ci buntu kër gi ma dëpp ne ko booy dëppit daa ngay yoot di yoot di yoot ba ne ca laa jële tuutaay bii ba léegi nii <laughs> lu garaaw laa lay wax nii njàmbe sama dugg sim Ndakaar noonu la demee lu garaaw laa lay tegal nii feebaree nga bëgg a yëngal feebaram day metti loolu da nga xam naa ne am na yow doo fen yow xam naa ne yow yow fen moom du ma ko def sax barke yonent bi mais am di dajji nga ñu mais am di yow damay gis temps yi da nga yëngu si ay affaire de caméra de la rue wak di sonal nit ñi am na yooyu pour la foo jëlee inspiration boobu waaw xam nga rek mbir moom boo ci nekkee mhm. gaa bi ñu ci duggee yàggut. Mhm. wax dëgg fa yàlla parce que ñun ay Baye Fall lan mhm. te ku ne Baye ne neex. ku ne Baye Fall ne saf xorom. yaa ngi dégg maam ñun buñ toogoon jataay ñu ñun suñ biir. Mhm. kenn du ñëpp. gars yi topp ma bàyyi dugal ci comédie dugal ci comédie mais man bokkutoon sax samay mbir. wax dëgg fa yàlla mu ñëwee naturel voilà après benn benn benn weeru koor. 2018. Mhm. lan def benn vidéo bu ndaw rek affaire bi jàll. Mhm. gars yi ne ma da nga koy continuer. loolu ñu dugal ci comédie. Mhm. mais tamit bi ñu ci duggee ñu def suñ première vidéo affaire bi jàll. ma ne pourquoi pas ma dem jàng ji ko. pourquoi pas ma jege ñi ñi nga xamante ni ñoo ma ci sut. par la suite ci la xamante ne Demba Guissé sama benn grand. ndeysaan maa ngi koy nuyu au passage nit ku baax wax dëgg fa nit ku baax day jàpp ci samay bagage bu baax wax dëgg yàlla. après ci la ma booleeg papa kamu lees. ma nekk trouble moment di fa jàng apare tamit ma dem arko bu Pikine mhm, dama fay dem waaw damay dem ay layti faal waaw nit ku nit ku baax ndeysaan nit ku baax nit ku oyof mhm. ay ndeela ay ndeela bi ne ci ñànku ñoom ñoo ma yóbbu foofu mhm. samay gaañ lan waaw ndeela moom nit ku baax ak ay mère Dial ay mama Ngone xamante naa artistes yu bari ñoom ñoo ma ci lool nag par la suite ci laa fa dem di jàng tàggatu di ci di a gëstu bu baax quoi. di gën a gëstu quoi donc affaire da dem maam gëstu ko bu baax. waaw ñun loolu la yëpp après mm-hmm. mm-hmm. gis nañ loolu baax dañuy mm-hmm. dina am comédie mais dina am tamit benn message bu ñuy jàllale ci biir quoi. dëgg la am na da booy liggéeyandoo. waa si dama am nag équipe boo xamante ñoom laay liggéeyandoo. waaw xanaa ma woo la ku naan sama waa bàyyi kooku da lay daaj de. tët tët tët. am na yéen a ngi bëgg waa sa gars yi noonu neex. bàyyi kooku xoolal dafa sikote. sikote bàyyi. kon nañ ko bàyyi mu wàllu ko te ñëw. waaw xaaral ma woo la ku naan ici là-bas. ici mu ñëw wax la mooy lan. ici là-bas mooy fii ak fële. fii ak fële waaw kay. <laughs> kon Roobé time ñu dem xool ici là ti te ñëwaat. bonjour bonsoir bye bye je vous c'est moi ici là-bas attends que je présente lui il s'appelle Petit Prince c'est mon ami c'est mon neveu quoi man maa ngi tudd ici là-bas gën ma xam ci làmp Baye Fall bi daj dëpp gi jànjar ak joor gi faraxa tàññi gi ki wekkoo léegi borom baadoolo si or yi man la waaw góor bismillah bismillah ñu leen siyaar maa ngi tudd Babacar tudd ma Petit Prince tudd ma Petit Prince Babacar laa tudd wax naa ko ba sonu mbayi ma Petit Prince tudd ma Petit Prince voilà ok kon waaw salaamaaleykum waa Sénégal waa àdduna ñoo ngi leen di siyaar kenn ku ne sa ak sa sant di la bégee waaw ñun la waa groupe dérangé team dérangé bu am di comédien am di sama rakk la ñoo bokk ndey ak baay ak papa man moom waaw kay émission bi mi ngi tudd roube roube nan roube time waaw kay tey nag dañ ko war a roube ba mu neex waaw kon nag bisimilah Babacar bàyyi naa la kàddu gi waaw man moom lay may wax du bari ndax man lépp loo xam dama koy wax dama kaa dund li lay wax nii moom xam na ko fekkee man dëkk moo fi Thiès laa dëkk dëgg la ba ma ñëw fii sept places laa jël sept places mm-hmm, mm-hmm. sept places ku nekk xam na ne sept personnes lay def dëgg la ma jël sept places mm-hmm. di ñëw oto bi di daw di daw di daw man ak benn maire ñoo ci nekk dëgg la ak chauffeur bi ak ñaari xale yu jigéen bañ mat sept personnes oto bi di daw génn Pout di daw di daw di daw di daw ba attention taxawal foo wax Pout waaw waaw bisimilah demal Pout laa wax waaw continuer waaw na nga déggee Pout gi ak Pout gi waaw oto bi di daw di daw di daw ba dugg Pout ba mu duggee Pout romb na puut ñëw ba ci àll bi ndeysaan yàlla def oto bi choqué mu dëpp nag. Oh. ñu nekkoon ci oto bi ñëpp sept personnes yëpp dee nañ. sëfar oh. bi toog jaaxle. nu ñuy waxee rek am benn maire bu génn si àll bi rek wooy wooy ah. rek xam moom it. bu deewee foofu noonu. day nekk huit personnes te boobaa surcharge lay doon safari bañ na loolu jàpp ko dugal ko ba ci àll bi tëmbal ko ci kàmb mhm. ne ko may wax nga bëgg maa indil surcharge du ma ko nangu gars yi woo sapeur amul problème gars yi woo sapeur gars yi négocier ñi nga xam ne gaañu nañoo ak ñooñu ñu jël leen yeb leen si beneen oto nekkat ci biir oto bi ndeysaan man keroog xaw ma ci la laa dugg oto bi am na benn maire boo xam maire géwal la maire bi ah. dafa jóge xew ndeysaan gàddu benn mbuus nekk ay mbaax la ci def ak ay butit oh là là situation teg ko ci kawam di nelaw naan ni yow oto bi di daw maire bi di nelaw oto bi di daw bi di nelaw oto bi jékki-jékki rek laal doo bi taj rek tëb rek maire bi ne jëf yam ci boutique yi ne woo yàqu naa pour loolu yëpp ndeysaan noonu laa def ba dugg mais man dara daal bonne continuation ah, merci mon merci beaucoup waaw man dama bëggoon a lancer nag benn message bu am solo waaw ñun danoo nekk parcelle doon ay jeune talent bëgg ku nu jàppale xam nga tey lii émission bi mënoon nañu koo jël yóbbu ko feneen ci yenn lieu yu rafet yi xam nga yaa ma gën a xam mm. mais ñun parcelle lan am dëgg la ñu fi nag mais danoo paas ñëw dëgg la waaye dëgg fa la ñu fi dëkk gënuñu ñu fee dëkk ndax ñun fi lan fi lan defe suñ lépp lépp suñ teraanga fi la nekk dañoo bëgg ñu jàppale ñu bonne volonté lañ koy wax mhm. ñi nga xam ne ñi ngi parcelle nan ñëw jàppale am di comédien te xam ne ñun li ñuy def wax dëgg fa yàlla suñu xéewal ñun la ñuy jël di di ko di ko ci def ay juróom ay fukk kenn jàppale si dara kenn jàppale si dara petit prince may ma lu ne la ñuy dajale comprendre nga ku moom mi ngi nii xaalisam da ciy dem man sama xaalis da ciy dem kenn xaalisam da ci roube time nag waaw kay roube time nag waaw booy man xam nga lan moo ma jaaxal Mortala Fall. Mhm. bërki démb damaa jóge fële côté Akapes. waaw ma romb fa benn baay Fall bu doon sama mbokkum Baye Fall la na ñoo bokk kuréel wax dëgg fa yàlla. Mhm. mu doon tabax foofu benn jàkka. mais Fall nam daanoo moo ma jaaxal. Oh. dix-huitième étage la jóge mooy sorol yu guddi yooyu. waaw xam naa waa ba muy wàcc. Mhm. fekk dafa am benn maire bu nekkoon ci suuf di jaay mburoog ñebbe. ndeysaan sawaay bi muy jugee ci kaw ba quatrième. bay waaja aksi Baye Fall bu am ngor. xam nga mënoon naa dee yóbbaale borum yow Baye Fall la dee mais da ko da ko yoreel trente cinq mille ndambe. mais bi muy wàcc dem bay daanu la nit këj ci air bi taxaw tourné ni maire bi yoreel naa la trente cinq mille. waaye maa ngi dem te du ma ñëwaat. maire bi ne ko baal naa la ko ci xol bu seddu guyu. maa ko fekke man ak yow. la waaw loolu daal moo a xaw a jaaxal. Ah, ñun moom dañuy dund. waaw ñun lu ñu lépp loo xam ne rek. Mhm. da am na ñun ñoo koy fekkee. wér na waaw wér na ba ci suñu sànja ba ñu amoon ngi dégg place des des euh, des militaires. waaw merci beaucoup côté kii bi xam ka foofu noonu ndeysaan daa amoon ay segg ak gaynde li fa ñun ñu dëkk si moo tax gaynde yi daw ak segg yi jamono jooju fay liggéey centième mère fay yaa ngi koy fàttali bu baax waaw jamono jooju très bien très ba mu yàgg nekk te ñun chantier bi ñu jàkkaar lool mhm. benn paa ak doomam ñoo fay liggéey ndeysaan doom ji nag yàlla daf ko nattu xet maanaam bakkan bu baax la am day toll fii maanaam luy xeeñ sax ba kolobaan da koy yëg moom booy bi nga xam nga wax nga dëgg ñuy ñuy liggéey di liggéey di liggéey di liggéey di liggéey ba mu yàgg mm-hmm. rek doom ji ne paa bi papa man gaynde ak may xeeñ oh. paa bi ne ko da ngaa jom oh. tàmbali nga heure bu ñu commencé liggéey ak looy wax concentré wul nga raax-raax mi mm-hmm. doom ji commencé raax di raax di raax ba mu yàgg ne ko papa mm-hmm. ne ko gaynde mu may xeeñ boo ñibbiwul man maa ngi ñibbi booy wàcc na esel wi di ñibbi daam fula bàyyi paa bi si kaw bâtiment bi paa bi di raax ba mu yàgg jékki-jékki gaynde gi xiir affaire yooyu noonu xam nga paa bi dore gaynde gi yóotu ko mais lekk ko waaw waaw waaw gaynde gi gore lekk ko dafa gore mais gaynde gi yooyu dafa gore dafa jàpp mais histoire gaynde gi lay nettali dañuy nettali ñun luñ dund cookaam waaye li ñuy dund lépp ñoo ko dundandoo doomu buur ba ah waaw waaw seeni seeni seeni seeni benn buur moo am doom bu jigéen ne góor du ko jege ah. mu jaral ko mu dem fu sore sore sore sore ma ne kii man dinaa dem ba découvrir doom ji mhm. te dinaa ko ritambale yaa ma gën a xam man ci loolu lay dox booy ma dox ba ci dëkk ba ñëw laajte kër buur bi ñu woon ma ko ma dugg ñëw na ko man di buur damaa ñëw bu fii jëm benn village ci ginnaaw te du fa guddi aw ma fu ma tëdd mhm. te ginnaaw nag yaay borom dëkk bi mhm. faaw ma ñëw ci yow nga dimbale ma fu ma tëdd buur mhm. daa ne ma sama doom bu jigéen a fi nekk de te bugguma góor jege ko ma ne ko buur bu dee man ak man rek na sa xol sedd man moom dara baaxul frigo laa ngemboo waaw doom ja tudd Kumba Siré maram bii bu neexee nga ko ca ah, yaa ngi dégg mu dalal ma ci néeg bi jabar ne ko nijaay dégg naa dangaa am gan mu ne ko waaw min ci biir dama nga xool ko mu ñëw ne ma na nga def ma ne ko fi avant loolu buur dana ma noo tudd ma ne ko seeni taat mhm. mu ne ma sunuy taat yow moom doom sa tur wi gën a ñàkk ne ko noonu la ma sama baay tuddee mhm. jabar ji ñëw bi mu ne ko nijaay dégg nga am gan mu ne ko waa mi ngi ci biir dama nga xool ko mu ñëw ne ma ko man mhm. sax mu ne ma sunu coq ma ne ko noonu la ma sama baay tuddee mu ne jàmm seeni coq doom ji ñëw ne ko nijaay papa dégg naa da ngaa am gan mu ne ko mi ngi ci dama nga ko mu ñëw ne ma noo tudd ma ne ko ñebbe mu ne wuy sama ndey ak ni ma bëggee ñebee mhm. ma ne dal naa ca carte ga leer na bëgg na musibaam saa yu ñu tëdd ba guddi ma dem ci doomu buur bi di ko yekkataat te mhm. ñetti tur laa joxe ci kër gi benn bokk ci sa morom doom ji yu wuy papa ñebee may rey wuy papa ñebee mhm. wuy yaay ñebee papa ñu ne kii daa bëgg ñebee bu tëddee sax da koy gént yu koy gën a takkar naa si boy <laughs> yaay ji yaa ngi xaaral ma dem xooli nu mu demee yaay bi ñëwee daan ni way nijaay wax na dëgg seeni coqoom koy rey mu ne ko bu ko coqoom li sonalee na ko wat laa la wax dama sonn yaa ngi dégg. boo yuuxu yi gën a takkarnaase rek papa ji daal di ñëw yë yam ci man ni seeni i taat daal di woo gardien yi booy mhm. placé ku ci nekk ci benn bunt waaw daa ne su ma ne jàpp leen seen i taat rek ngeen jàpp seen i booy gardien yi i baraaket taxaw ñoom ñëpp def man génn ci néeg bi ne poy ma damaa jël suma sensation waaw damaa bëgg Sénégal ñoo xam ne man maa dàq woy fii wér na man dama neex baat. wér na yow man de Samba Jabare. barki yonent bi boo wooyee war ngaa woy boo wóor war war ngaa woy bu fi jooy na dimbale ñu rek ngir yàlla dimbale ñu rek ngir yàlla jàpp ci rek tey ruube lan wax amul jooy. Ah. waaw bisimilah. damaa bëgg ñu xam ne man damaa mën a woy. nga nooy barki yonent bi. moo du mbaay. Sambay Mbaye. da ngay appuyé na ngi waaw maa ngi lay kii yow kay dama waaw xam naa la kay fi mu est-ce que duñ bàyyi woo yi sax su ma sañoon na nga bàyyi ko ñu dugg ci gaam yi rek rabbal gis ko ñoom bax rabbal gis ko rubé rubé taay regal gësa ga dag ak ñambe regal gësa ga dag Equivox regal gësa ga lool du yomb regal gësal rubé rubé regal gësal rubé taay regal gësal wuy rubé dag gësal rubé taay regal gësal ki ñam bax dag dag gi ngar wan wan dag dag dag dag dag dag dag dag dag dag dag dag dag dag dag tegi teg regal teg teg tegi teg regal gis teg tegi tegi ziar nañ lépp jàmm alhamdulilah waaye dañuy wax ci am di mbay waaye bu baax pour comédien bu mën li muy def suñu reetaan loo ñuy bég di kontaan tout le temps ñoo ngi suñu place di bég di kontaan gaayan bu pour la daal bu baax li ma mën a wax ci moom ak magam lam maa ginnaaw bi nga xam ne vraiment nuyu nuñ ñëpp di fay ñëpp aussi di baalu ñëpp aax dañuy wax ne laaj ngeen ci xale boo xam ne <laughs> non xale bu am temps du yaru du tey mën li muy def muy am di Moustapha Mbaye ci xale bu mën théâtre xale bu am fulla ci boppam vraiment man rëccuwuma li ma ko xamee ci rëccu daam mooy lan moo tax ma yëg ko xam gis nga ñu mel ni ñoom bëri nañ Sénégal fii ah, mais amuñu ku leen jàppale gars yi seen bopp ak lañu tal mais xale yaa ngi fii ah, ay nañ trop nañ dugg ci gox yi génne xale yi génne leen teg lañ ci ah vraiment ah. am di yow yal na la yàlla defal jàmm yal na la yàlla sàmm vraiment man su may wax ci yow du ma xam sax fu may commencé ak fu may lu baax. ah baax bëgg jabaram hmm. bëgg ay mbok mbokkam bëgg ay mag waaw commencement bi neex ma woon mais damaa xam ne moom bëgg-bëggam la moo tax hmm. léegi ma noppal bàyyi ko man nit moom mënoo xëy-xëy lépp sotti hmm. na jàpp rek bu jàppee xam naa ne moom bàyyi faa la bu jàppee rek dina baax yàlla baax na xam naa li mu bëgg moom dina ko am incha allah la moo gën a neex ci am di la moo gën a neex ci moom reetaanloo bi reetaan bi may reetaanloo ak fecc yi may fecc. ah comédie bi yamul yamul kese si mbedd doo ko def maa ba ci biir néeg bi lëmbal rek lay def. laa ilaaha illallaah fecc rek lëmbal. <laughs> ah tabaarakalla macha allah. Roobé time daal ni demee saa su ne ah, vraiment kontaan nañu am di ah, Roobé nga gars yi Roobé nga ma Roobé nga askan bi dañu xam ne jamono ñu toll nii askan bee safoo Equivox TV rawatina maam xale bi nga jamono muy ñaame damaa xew nag. non da yàlla kenn du man non da ngaa ba pare ngot nga jënul jënul lot xam nga jënul lot ndax cher yow lot nga booy fii. am na ma rey rek ma dee moom donc loolu dëgg la mu def lu rëy am di. waaw la may semoo dara fi ak Roubé Tam ànd ak maa Equivox TV xamante ne saa su ne chaque mercredi ak samedi 17h 18h te am na la ñëwoon sees si ak ñeneen ñeneen am di de la fin. waaw di santaat rek. Mhm. di santaat ñëpp yow it di la remercier. ñoo bokk di la remercier quoi ak sa mhm. équipe. bi nga àndal ak sa caméraman bu ñaawul bii. gaz bu ndaw boy mbuur waaw barke yonent bi Malick gaz bu ndaw. <laughs> yow xam nga ne kenn moom bu la neexoon mën nga bañ a mhm. ñëw ci ñun. Oh. mais wax dëgg yàlla ni ko defee naaj na trop quoi mais njàmbe. damay santaat sama group bu baax. damay santaat ñi may àndal waaw damay sant ñi may àndal baax a baax a baax parce que ku ci nekk da ngay bàyyi sa yitte. Mhm. ak jamono ji ni mu mel nii. barke yonent bi heure bu ma mhm. ak lu fu ma la woo da ngay ñëw. ñu ciy def seen xéewal di ci def seen ñaq. kon man munu ma dem sans ñoom faaw ma sant leen ñoom bu baax. di sant nag sama yaay bu baax a baax. Ah, dafa mat yaay. Mhm. mat baay mat bàjjan mat tanta mat maam mat rakk mat lépp. di ko ñaanal rek mu yàgg fi ba fekkee sunu njariñ ba mën ko teral di sant sama grand frère bi muy ici là-bas sama mag la mais boo nu gisee da ngay da yaakaar ay xarit lan ici la waaw waaw da ngay yaakaar ni ay xarit lan quoi wax ay ay kii xarit lan te sama mag la wax dëgg nit ku baax la waaw di sant ñëpp di sant sama jabar bu baax aussi tamit wax dëgg yàlla am remercier nga 1 ba waa parcelle nag moom mënu ma leen fay moom parcelle moom booy mënu ma fay parce que Diourbel laa jugee ñëw fi mais dañ ma jàppe comme seen doom di ma jàppale. am na loolu lépp lu gis ànd na sadaxallaahu wasim. waaw kon mbasa <laughs> a mbasa mbasa. gin